تاج العارفين وممد كل أولياء الله الرحمن من فيده الختمتم وعن وارث سره مولانا الحاج مالك ibnu Ousmane taaballahu alayhima mbokku téléspectateurs yi yi safoo di seetaan seen seen télévision bu mag bi di Aynu Maadi TV comme ni leen ko xewoon tabaarakallahu ci gàmmu gi dañ leen indil nag émission bu bees tàq tuddé ko gamu ak aynu madi waye bu ne gamu xel yeb day dem ci cheikh Sidil hadji Malik radiyallahu taala anhu mom mi nga xamni mo wote woote wootem bu rëy ba ni ala azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al'aram udulu Maodo neena wote luma sama bop ñu ne ko ko wotel mu ne ñun ñëpp nañu ànd màggal guddik juddug sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu def ko nag xisbatan isa lam yakun naxwa alxaraami kon dañuy ñaan yàlla mu fayal ñu Seex Sidi Xaaji Malik waaye fayal ñu njabootam gi taawu liggéey ba egsi fii la ko dale ci maam Sidi Ahmed Sëriñ Babacar Si alxaaji Mouhamadou Mansour alxaaji Abdou alxaaji Habib sëriñ Mouhamadul Moustapha si Jamil borom daara yi sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum sëriñ Sidi Ahmed si Babacar sëriñ Papa Malick si ak seeni jigéen ak nañu ko bokkal ci muhaddam yi àndoon ak ñoom yal na yàlla fayal ñu leen waaye ñaanal ki ko fi wuutu wuutu ay magam wuutu ay baayam wuutu maamam di sëriñ Babacar si Al Mansour ñaanal ko yàlla toogaayam bi yàlla nay toogaayu maamam Cheikh Sidi Hadji malik waaye yàlla nay toogaayu baayam yàlla nay toogaayu ay magam tooge ko nag ci tawfiix ak taysiir waaye ci sutura yàlla may ko ndam ci réew mi may ko ndam ci kër maamam waaye may ko ndam ci xadara bi di xadara Cheikh Sidi Ahmad Tidiane sëriñ Babacar Sy Mansour ak ay rakkam sëriñ Maodo si sëriñ mbay si abdu fa tabaarakallahu bu ñu nuyoo noonu nuyu nañu njaboot Seydi Hadji Malick yëpp tey nag ñu dalal fi njabootu Serigne Sidi Ahmed si Babacar muy groupe sopp Serigne Sidi Ahmed si ibnu Serigne babakar si Serigne di ñaanal doomam ji Serigne Abdou Aziz na ko fi yàlla bàyyi te may ko wér mu àggale naa baayam ci barke ay maamam ak ay baayam tabaarakallahu ñu fas yéene nag waxtaane jàmbaar ji Seex Sidi Xaaj Malik waxtaane ko ci taxawaayam ci xam-xamam ci yaram ci éducation am ci pédagogie am ba mu indil ñu guddi gu tedd gi nga xam ni foo dem ci àdduna buñ ni laylatul mawlidi nabi sa xel dem Tiwaawan dem ci Seex Sidi Xaaj Malik kon Cheikh Ahmad Tidiane Thioye mom lañ fi dalal ànd ak Ibrahim Maxtaar Njaay maam Ibrahima Diagne fa tabarakallah ñu fas nak door émission mag bi di gamu ak Aynu madi di ñaan nak képp ko xamni ni nga wala soppé yenen tubi nga nga abonné ci sen chaîne YouTube Aynu madi TV Cheikh Tidiane ana lan ngay wax ci Cheikh Sidi Hadji madi فضل على الابن سكر والدين ومولى والد البر يا أفتاث أديب سردين فرض على الابن وشكر الوالدين ومولى والد البر يا أستاذ ذو سر فرض على الابن وشكر الوالدين مولى الوالد البر يا أفتى فرحاد منصور فرض على الابن شكر الوالدين مولى الوالد البر يا الأستاذ سر ينبغي فرض على الابن وشكر الوالدين مولاي الوالد البر يا أفتى الحادي منصور لنا فرض على الابن البر يا أستاذ ذو سرباينا في البسيطة وخير الله معبود بالحق أنفسا ما للغير الحادي منصورنا فرد على الابن يا خيس شكر الوالدين يا خيس يا أستاذ سندين في البسيتة وغير الله محبوب بالعقل أنفسه ما للغير العادي منصور لنا فرد على الإبن يا خيس شكر الوالدين والد والد الروح يا أستاذ سنينا معانا ومن إله وعيد أقسم لله البقى وزاد ناء في تجيب منصور قال برد على ابنه وسلم الآل وأصحابه وأول أزواج خاتمة الغمائم بخيرات زي تمهيد الهادي منصور والآل وصحبه والرسول الخاتمة ما للخيرات تبيد وتسمين والآل وصحبي والأزواج خاتمة ما في الخيرات تبيد الحاج منصورنا والآل وصحبي والأزواج

تغيد الهادي منصورنا والآل وصحبه والأزواج فاطمة فاطمة بالخالق تغيد الهادي تغلف صلي ويدين الله بدر إبليس ومبتسم ما في منه الهادي منصور لنا والآلي وصحبي أيوة. والأزواج قاتلة الحلم في بغارته تبيدنا يا تفويم أعفلت أرفل وفي أسوابه والغيث في رغم والجد هدي منصور ليلى والآل وصحبي والأزواج خاتمة الحكمة بالغارة زيد تبيد وتزيد سيدنا خط العباد جميعهم شخصي العاج مالك الله تعالى عنه سيدنا قط العباد جميعهم إلى الله من خاض بأصل سياستي سيد العاج مالك ولين واداب وعلم دين موضع وعلي أواهم دون من وصواتي وعرفت إبليس اللعين وإسبه جخائي وحاربت إبليس اللعين وإسبه بأزم وأزم واستبار وهمتي شخص العاج مالك زايا أبي العباس يا وصصد لأمركم لله في كل بلتي والعالي وصحبي والأزواج خاتمة المعروف حديثي تبيد الذي منصرنا والعالي وصحبي والأزواج خاطرة ما بالغراديس تبيد الوقت في بعد ما خبت وهو جود منبخت لنا بفيدك وتيسير العاجب الصنع وبعد غبتا وجود دار منبسط لنا بخيرك والتيسير مفروض بفيدك أي بفيدك محمد منصورنا لنا بفيدك والتيسير الحاج منصورنا لنا بفيدك بفيدك منصورنا لنا بفيدك والتيسير لنا بفيدك أي بفيدك خلف بما يمنى لنا بفيدك وتيسير الله منصورنا لنا بفيدك بفيدك

wa tey siiru masuruudu te toll nañ fa nag tey yal na yàlla mottali lépp ci barkent yàlla Muhammad Seydi Xaaji Malik yal nañu ko yàlla fayal Maodo bu ñu nee moo donn yent yàlla Muhammad ci lan première cause rasulillahi cheikh ci kaw suuf mooy jàngale yàlla def na ko iqra bismi rabbika Maodo donn na yenent bi ci jàngale parce que Muhammad daf ni انما انا بعثت معلما حاج مالك دوندم ييب دافكو جانغالي رضي الله تعالى عنه تنيت بور nga جارين كو مو جارين بوبام با مانا خام لي تخ يالا بيندوكو فاو دافا دون كونو جانغال ndax al jahlu asaddu min boroom xam-xam yi dañu wax ni nit pour mu mën a jëflante ak boppam mën a jëflante ak boroomam mën a jëflante ak ay moroomam laa yakunu ila bil ilmi moo tax sunu borom subhanahu wa taala نفعرفوني قبل أن تعبدوني ينتي الله محمد تال دارا يور دارا جا 23 ما زال يأتي له جبريل عد يجي من السنين بآيات من الحكم نعرف كي أتاك la seex seydi xaaji malik wax ni ca la yent yàlla muhammad taal daara di jàngale dindi nit ñi ci réer ndax réer bi gën a metti ci réeri mooy réere sa bopp moo tax seydi xaaji malik bi mu ñëwee pédagogie boobu la njëkk a samp ca njarne cedda yeeg jaahil yëpp Maodo takkal leen ak réer wan leen kuy seen borom te nëbbu boppam ndax nitu yàlla am na cër yu ko yàlla may su nëbbul boppam wàcc wane boppam nit ñi dootuñu gëm yàlla moom la ñuy gëm nit ñi dootuñu topp yàlla moom la ñuy topp te yàlla bindul nit ngir mu topp nit dafa bind nit ngir mu jaamu yàlla moo tax Seex Sidaaji Malik soo demee ci kifaayatu raaxibin muy gindi doomu aadama ni dañuy dem ba jamono dafay toll foo xam ni nit ñi dañuy jàpp ni lix ak matériel mom lañu wara jaamu wala luxe ak matériel moy tax nit nek ab serigne wala nit luxe ak matériel moy tax ñu wara top nit muni wazanna an al fatqa iqbaalul bariyati wal muraadi min ad danniyati siraaji malik ne da ngay dem ba nit ñi te boo loo sunu jamono parce que nit su jàngul xamaluñ ko day mel ni xob rek ci ngelaw lu naaw yóbbu ko lu riir mu defe lool loolu la fekk li ko ko yóbbee mooy ñàkk a jàng te sayiduna muhammad wax na ni ana bu'istu mu'alliman dañu ma yónni ngir ma xamle xamle yàlla nan lañuy topp yàlla xamal nit mooy kan ba nit mën a xam boppam ndax man arafa nafsahu arafa rabbahu waaye du matériel lu ñu matérialiser du alal déedéet jikko la ñuy topp nit ndax yenent yàlla muhammad yàlla joxu ko ay milliards joxu ko ay millions zahiran waaye jox na ko lu gën milliards gën ay millions gën matériel te mooy jikko bu rafet laxad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ma rasilaaji malik ni jamono ngi nii war nañu distinguer ñaar yi wal xasara al xasara min sucbati al aalimi bi lisaani aalim bi lisaani mooy ki jàng ba koñ bi yëpp xam ni kii am na xam-xam dëkk bi yëpp xam ni kii am na xam-xam waaye xam-xamam ci làmmiñam la yam wal xasara al xasara min suxbatil jaahili te cheikh ànd bi gën a bon mooy ànd ak kuréer tey bala ngaa xam ni ànd ak kuréer bon nga dem ci dëkk wàcc fa xamoo fa kenn nga réer di laaj fa nga jëm foo jëm nga daje ku réer maanaam nga daje ku réere ba nga jëm yow nga koy laaj fa mu jëm fa nga fan nga jëm pour mu tegtal la fa dalay lay gën a sànni ñii laajte ndakaaru xam nañ li may wax ndakaar léeg-léeg nga laaj koo xamante ni nga jàpp ni fam la tegtal xam na fa fekk dalaa gën a loolu mooy soxbatul jahili al mudda'i te sa maam Seydi Aji Malik radiyallahu taala anhu nee na yéen ndaw yi jamono yéen waa jamono moytu leen fa inna soxbatahuma aynul fasaadi Seydi Aji Malik ne jamono ngi ñëw lu fa yàq ñaar ñi ñoo ko yàq aalimun bi lisaani ak soxbatul jahili ndax ulamaaw yëpp dañu daje ñu ni kii wax ci diine kii wax ci diine di def daawa fil islaami an yakuna aaliman aw an yakuna aalimul allaama dafa war a xam ràññee mën a le les choses lu ne mu xam fuñ koy teg waaye mu nekk koo xam ni suy wax dafay wax ci digle yi yàlla digle ak tere li yàlla tere wal takun minkum lu ci yàlla teg يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر شيخ سيد الحاج مالك فوفو لا تيغون تانكام وان نيت ني نيلن كين امول سان سانيو جامو كين كودول يالا كين امول سان سانيو توپ كين كودول يالا nit ki sax boo koy topp da koy topp ci li yàlla bëgg soo koy roy da koy roy ci lu yàlla bëgg soo ko mënul topp ci lu yàlla bëgg mënoo ko roy ci lu yàlla bëgg soo ko àndee boo àndeek moom dalay sànq parce que Maodo nee na kooku ci aynul fasaadi la bokk te Siraaji Malik radiyallahu taala anhu waxoon nañu fi jamono di jëm wax nañu ko démb tey soog a ñëw laa siyema nee na du ñàkk ci jamono fi xaasiril xuruuni zil jëhli wal fitna wal fasaadi Maodo ne addunaa ngi toll foo nga xamante ni ñett yi ñoo koy lëmb ñu ni ko si ban ban mu ni al jëhlu réer dañuy dem nit ñi seen diine dootu leen jaral dara lu ëpp lu ñuy def ci diine dañu koy réere ñu ne ko ak ban mu ni wal fitna ak bëgg fitna da ngay dem ñoo gis ñoo xam ni dañuy dem ba toll foo xam ni yee fitna moo leen gënal kaay lekk wala kaay naan fu ñu waxe góor yëpp sañ seen nopp sëriñ Aji maa ngi neen foofu la jamono toll ñu ni ko lan mu ni wal fasaadi ak ñaaw téef Seydi Aji Maalik ne jamono ngi ñëw nit dootul amati rusukaay pour def lu bon xam nga bo demee ba nit nara summi ay yéreem xoryaana naka ndayam woon mu mën a photo wala filmer boppam poste ko ci Facebook wala ci YouTube àdduna yëpp di ko gis sans complexe kon la Maodo doon wax egsi na lan moo ko fi jële mooy ñu delluwaat ci jukko yent yàlla Muhammad moo tax Cheikh Seydi Hadji Malick Cheikh dund ci àdduna Maodo ñetti projet la amoon dooma laaj ban ak ban ja ju ba jàng jaamu yàlla jaamu boroomam Jang la yenen tibi waxone al madrasatu xablal masajidi bala ngay tabax jakka tabaxal dara. alaaji ma ñew tabax jak tabax dara tabax jak ku tabax jak nak la la war moy jaamu yalla Cheikh Sidi Hadji malik loolu la andak ak defar ci rewmi موتاخ موني الا يا بني عاز الزمان دعوتكم نينيكو سي لولن دي دوي موني لي احيا الدين اي نك بالعلوم باسكو الدين سونو بوروم سبحانه وتعالى موني الدين لي وحدي دين من يالا من كسي ماكو موم مي يالا نك ميم بيغي ني دوخال دين دي دا فا يوني كو نيوكو دوخالال كانيوكو دوخال نك بامو نيوي pédagogie bam indi moy yàlla neena ngeen jàng motax sama mawdo neena jeulena ci imam hazali mawdo intellectuel la ndax intellectuel da am savoir vivre intellectuel da fay meuna consulter ñep da fay meuna jëflante ak ñep te du ko té mu téggu ala sawaab bil xaqi wala ci semé ba mu bëgg jëm Seydi Hadji yàlla dimbal na ko ci loolu mbolem borom xam-xam yi ñu ciow ci àdduna Alaaji Malick gessu na len lañu sellale jël nako indi jox ko xet wi cheikh imam Azali ne al ilmu bila amal la yakunu jàng naa am xam-xam man la ñëpp di déglu te yow jëfewoo li nga jàng amoo xam-xam dañ lay jay xamoo lo lo gisee ko xamul dara mooy kooku mooy ki jàng ba mën a xam li xam li bon mën a ràññee li baax mën a ràññee li bon mën a taxaw wax li baax mën a taxaw wax li bon te moom jëfewul loolu mu ne kooku foofu xam-xam nekk fa ñu ko si ak kan mu ni wala amalu bila ilmin junuunun te al junuunu funuunun cheikh nite ngay sol ba jekk nite ngay dugg ci oto bu rafet nite ngay tabax kër gu rafet nite ngay am compte bancaire nite ngay toog ay mbooloo wër ko muy wax fekk ni nit kooku xar ba ñu yeew ci gétt ga moo ko ëpp demen xam nga mooy dof bari ay catégorie al junuunu arab ne al junuunu funuunun waaye sama Maodo fexe na ba tàggat xeli yi namm xol ak ruux yi jëmal leen seen borom moo tax doomam yëpp way ko Seydi Hadji Malick radiyallahu taala boppam wagnu yent yàlla muhammad ndax mawdo ku yeme la xam nga mawdo dundam yep alquran la parce que ki mu roy tax waxam bi wax bu jara set la ahdattu xubba rasulillahi maxsharati li kay yulaaqiyani fi awali zulami wax bu jara seetlu la wax bu jara seetlu la كوي ووت نام نفا مسيراج مالك بغ جيمو بغ رسول الله تي لا جيفه تي ايار القران ييغا خامتيني كان خلقه القران سيدنا محمد مودا تي لا روي نا يالا ني لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سيراج مالك فلا تك بلو النبي جيفه مودا جيفه نكو amul loo nabi def na ko te Seydi Hadji Malick defu ko dundam yëpp topp na ci rasulillahi xoolal téere bu tedd bi di xilaa zahab fi sirati xayri xarab xool lim ci wax yëpp min al bidayat ila nihayat mu ni yàlla kama wahabta lana tartiba بصيرته فهب لنا إمدادك مولانا صل يا إلهي وجزينا أبدنا على محمدنا المختار في القدم بصيرتي فهب لنا اهتداء هديتي مولانا وصلي يا إلهي وجزي الأبد عنا النار في القدم مولانا كما وابتغى لنا تجدي مسيرتي وهب لنا القدر يا هادي سيد العادي مالنا وصلي عليه حبابنا عنا محمد المختار في الخدام منك ما وهبت لنا ترتيب سيرته فهب لنا اهدنا يا هادية بالحادي مالنا وسليا يا إلهي وجزينا أبدا عنا محمدا المختار في القدم مصطفى كما وهم وابتلنا تلنا تتي مسيرتي سيرته فابلنا اقتداء يا هادية محمد البر رسولا صليا يا إله وجزيا مخلد أبدا يدق لي أن محمدنا المختار في القدم جزاك الله خيرا أو جزاكم الله عنا خير الجزاء waaye Seydi Hadji Malick yàlla nañu ko yàlla fayal xam nga nee naa dafa yàgg toppandoo rasulillah te yàlla dafa wax ni xul in kuntum tuhibbuna allah fa tabiuni yuhbibkum allahu wa yaxfir zunubakum wallahu xafur rahim waaye Seydi Hadji Malick wane ni bëgg na yenentu bi rasulillah yi daraan def saxaaba yi def sallu kama ni usalli waaye Seydi Aji Malik pour wane ni bëgg na rasulillah yi mu yàlla may gi ma may ma mën a taalif ci njol mag mën a nettali siiray rasulillah yi nettali boo xam ni fii ba yàlla di wal buftu bi kenn du ci mën a teggi benn araf wala benn farage lii wérul du am ci mbindu Maodo du am muni yalla ning ma meuna maye ba ñepp nawma ma way yalla amna lu mu gënal yalla ne ko lolu la gënal mu ne ko dama bëgg nga may ma tek sama tank fi ko rasulillahi tegon nabi def nako allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan sama tarwi, wi ni ku ko gis xamni man yalla dang ma dang ma ber dang ma beral cër ni nga ma binde binde woko ken ni ma rafet aw tar yalla yalla nga ko rafatale sama jikko loolu nabi dan ñaan loolu la do ñaan radiyallahu taala no kon mbok yi telespectateur ay numa TV euh waxtan ngi nonu li ñu mayon ci heure jotna na inshallah allahu taala duñ ko fi yamale xar leen ni waxtu wu nek fi ba gamu gi di jeex inshallah taala comme nuñ leen ko xewoon ci Aynu Maadi TV gam ak Aynu Maadi waye nak delo ñukkel Cheikh Sidi Hadji malik delo ñukkel njabootu Cheikh Sidi Hadji malik xamni mawdo naxuñu mawdo daf ñoo wan bañu tek suñu bëpp xamni limu ñu wan dëgg la ñu and ak mom motax bes mu dajelo mak ñep neen waaw so leen ma gisoon ma doxé doxin lu seen xalaat mak ñu ko ah si ñu jangal la fatiha ak salatul fatiha xamne ya yaa jàddu yoon wi ñun ñu continuer suñu mission xamne ñoo teggu ci siratul xaqi yalla nañu ko yàlla defal yalla nañu yàlla fayal mawdu kon gamu gaangi nonu inshallah taala di jaajeufal Cheikh Ahmad Tidiane Thioye di jaajeufal haji mahtar ndjay haji Ma Iba Diagne fii ci sen télévision Aynu madi TV fi gamu gi di jeex waxtu wi kar len ñu inshallah taala top len ñu amna émission yu am solo yo xamni Aynu madi TV jël leen ko te dinañ leen ko tegal incha allahu taala ngeen wéttali ngir wéttali leen ci gàmm gi comme ni ko xalifa bi santaane incha allahu taala yàlla na fi yàgg te wér te yàlla yokk suturaam fa tabarakallahu di gërëm euh, directeur télé bi alxaaji Abdou Aziz Ndion ak sunuy technicien yëpp fa tabarakallahu papis man ak mboolem ñu ko séqal yàlla na yàlla fay leen ci liggéey bu rafet bi ñuy liggéey wa ma zalika allahi bi aziz lii lañ leen indiloon tey ci Aynu Maadi TV ñu muy gàmm ak Aynu Maadi di waxtaane Seex Sidi Xaaji Maalik mais nag à suivre la ba ëllëg ak jàmm incha allah